الحمد لله حق المبين rabbi ummati واستر لا واجبران عربي الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لا واجبران buenas, soy Judith. Bueno, estoy muy agradecida de haber estado invitada al, festejo del nacimiento de, Mahoma. Así que, bueno, nada, todo muy lindo y gracias por eh, mostrarnos su, religión y su cultura también igual eh, a todos acá. Estamos muy contentos. ah di sant yàlla bu baax bim ñu mayaatee jàmm ak xéewal bañ fekkewaat gàmmoo yàlla may ñu xéewal ba ñu taxawaat ko nii ndax dëgg yàlla taxawin wi rafet na trop waaye nag mooy yoon it nag ki tax ñu bind ñu def lu ne ngir ñun coono bi mu daj ci àdduna yëpp mu daj ko ngir aw xeetam wax dëgg yàlla bu xeewlee jullit yëpp war nañ caa taxaw kenn ku ci nekk nga góor góorgóorlu ci xam te xam ne loo cay def lu nekk sa bopp nga koy defal bésu yonent bi moom lu ci jullit def sa boppam nga ko defal te loo ci def dafa war bu loolu weesoo it ñu ngi am contentement bu baax a baax ci nekkit wii ñu nekk fii Mar del Plata ndax dëgg-dëgg nag wax dëgg yàlla boo xoolee daje bi ñu daje fii ànd ko àndin wu rafet wi àndinu jullit la comme ni ma waxoon léegi rek fii moom nekkut nii kër maam kële kër maam fële ñoo fi daje ay jullit daal ñoo fi daje di defe fi jullit di ñaan yàlla rek mu sax te yàgg lool te ñu ñaan yàlla musal ñu ci seytaan yi ndax ànd bi rafet na lool di ñaan yàlla xéewal yi e, dëkk bi ñu nekk nit yàlla defal ñu fi xéewal bu yu yaatoo yaato yaatu defal ñu fi jàmm nekk wi ñu fi nekkit ñu yaatal ñu yàlla ne sax ba faw ndax wax dëgg yàlla am nañ fi jàmm bu baax a baax di ñaan rek yàlla na sax di ñaanal suñu kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew ma it ah nampal ci lii yar ñu ci jàngal ñu ci ba fu ñu dem yóbbu fa culture bi ndax wax dëgg yàlla am na solo trop sant nañ bu baax a baax a baax yàlla bu mu doon suñu mujj gàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah asociarnos, hacernos más fuertes y venir a participar, a festejar ese día que es tan importante que venimos a festejar aquí con todos los hermanos. ¿De qué se trata la fiesta? Del nacimiento del profeta Mahoma Mohammed, como le dicen algunos. Y siempre donde nos agarra, donde estamos, lo festejamos. Porque En Senegal, eso es lo que nos enseñaron nosotros. Nos enseñaron dónde están, dónde puede, puede llegar a estar. Cuando llega ese momento, hay que festejarlo. ¿De qué se trata? De hablar, de hacernos acordar de qué, de qué es la vida, de qué hicieron nuestros, eh, nuestros abuelos en Senegal, porque ellos también lucharon. Eso es lo que querían, que donde vayamos, que llevamos esto a mostrar, a demostrar a la gente y a seguir practicando y acordarnos de dónde venimos y de qué tenemos que seguir haciendo en nuestra vida. Así que la verdad es una noche muy importante para nosotros y bueno, lo voy a dejar palabra para los hermanos también que hablan un poco también. Y eh, buenos hermanos, y eh, yo la verdad estoy muy contento y eh, porque la pasamos muy lindo con los hermanos. A todos, gracias a Dios, todos ayudaron su fuerza su plata, todo. Así que estamos muy contentos de hacernos esta fiesta de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh, alhamdulillah, y empezamos bien, terminamos La verdad, está perfecto. Zéro li koy olof di wax zéro faute mais def nañ ko quoi ñi ngi sant yàlla nag bu baax di gërëm gaa ñu ndax mënta ñàkk ñu wax olof waaw ñi sant yàlla baax di gërëm gaa yi seen taxawaay rafet na wax dëgg yàlla man de sama xol sedd na guy ndax nan ko waxee woon rek ak luñ si jullu woon rek defee nañ ko noonu kon dañuy dan naan alhamdulilahi rabil alamin li may gën a dolli tamit di jéggalu gaa yi tamit ndax wax dëgg yàlla dafa metti waa mais lépp lu si jub rek nan dañ koy sant yàlla lépp lu si dëng rek ngeen jàppee ñu noonu rek xam ne suñu xel moo matul doomu aadama moom matul waaye lépp luñ si jublu rek lu baax rek nañ si jublu ak bis bi rek màggal bis bi kon ñu ngi sant yàlla baax ñu jox kàddu gi euh, jëwriñ mooy suñu jëwriñ ñu jox kàddu gi mu wax. Uh, wa and so um, mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk waa Mar Plata ñu ngi leen di ziar di leen balaax te di leen balaax di leen ndokkeel si bis bii nga xam ne moom lañ doon préparé ba yàlla eggal ñu si jàmm ñu defe ko niñ ko bëggee woon. di ñaan yàlla lépp lu luñ ci ñaan ak lépp lu ñu ci séentu te am ci yaakaar yàlla ko sunu borom jàppandil ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal tamit ñi fi teewoon ñëpp ak ñi nga xam ne ñoo bokkoon di organiser affaire bi wax dëgg yàlla fi yi jàppandiku na lool lool lool lool sant nañ ci bu wér a wér a di ñaan yàlla lépp lu ñu ciy sàkk daal yàlla ko sunu borom jàppandil yàlla nañu yàlla defal tal ak wat ko ñu teew koy déwén yi bëree bëree bëree bëri ànd ak gudd fan ànd ak wér ànd ak xéewali yaatoo yaatu ñi nga xam ne tamit dañoo am ay jafe-jafe si affaire këyit yàlla na ko yàlla may ñi nga xam ne tamit dañoo soxla xaalis yàlla na ko suñu borom jàppandil ñi am tawat am jafe-jafe yàlla na borom tegg seen kaw di ñaan daal lépp luñ fi ñaan daal tam ci yaakaar rek yàlla na ko yàlla boole defal ñu ko ñun ñëpp di ñaan ci réew mi ñu nekk te muy Argentine yàlla fi yàlla gën a ubbi suñuy bunt gën cee yokk suñuy xéewal gën ñu fee yokkal wér defal njaboot gi ñu fi am yàlla na yàlla dafa leen gudd fan ban tamit roy ñun nuroog seen waajur yi te nekk nit ñoo xam ne tamit ñu jaamu yàlla sax ci jaamu yàlla am ay doom yi fi yin fi am yàlla na ñu nekk doomu diine doomu lislaam di ñaan lépp lu ñu fi ñaan daal si guddi gi am ci yaakaar ak lépp lu yàlla ko suñu borom defal ñu ko di ko yéene ñëpp di ko ñaanal ñëpp yàlla na ko suñu borom jàppandil yàlla na ko suñu borom def yàlla nañ koy teewe ay déwéni déwéni déwén déwén man jëwrin maa doon ñëw di lancer message boobu di ko sant ñëpp di ko gërëm ñëpp di ñaan lépp lu ñu Muhammad yàlla defal ñu ko defal ko mbokk jullit yëpp maa ngi sant tey gërëm di jégalu di baalu nag wa barakatuhu la paz y la bendición de Allah sea con ustedes estamos muy contentos y emocionados de compartir este momento maravilloso y muy importante para la comunidad senegalesa de festejar el nacimiento del profeta sallallahu ta'ala alayhi wa Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala de darnos oportunidad de poder, de poder tirar un mensaje a las familias, a los amigos y los vecinos para que sepan lo que es el Islam. Que el, Islam es una religión de paz para que sepan lo que es el profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa que es el elegido de subhanahu wa Tuvimos también oportunidad de decir lo el Islam, tuvimos oportunidad también de decir lo que es el Corán. Entonces estamos contentos de compartir con eso, con amigos, vecinos y familias. Gracias. alhamdulilah bisimilah inna yàlla maa ngi siyaar ñëpp góor yàlla yi waaw di màggal ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay ci bés bi rawatina guddi gu sell gi nga xam ne mooy guddi Seydina Mohamed sallallahu alayhi gën ci mbindeef gën ci lu suñu borom sàkk gën fii gën fuñ jëm mën fii mën fuñ jëm kon dañuy def lu sant rek waaw daanaka daal mën nañ ne bés bi moom bésu cant la waaw bu baax a baax a baax a baax a baax ci lépp rek di ñaan rek képp ku ci nekk ñun rek suñu borom ci màggaayu guddi gi mu defal la tawféex defal la yërmande defal la taysiir defal la doole biir lépp di leer rek ak yërmande jiituñu di dini gindi saa su nekk rek ak yërmande waaw loolu daal dañu amoon luñ ci sànni rek. te di leen bu baax fii ci Touba Argentine Mar palaata ci guddi yonent bi alayhi salaatu wa salaam tey ñu ngi ko doon dundal fii ci Mar palaata bi nu xëyee jàngal alxuraan ci lim bu bari ak ak xaside yi sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam guddi gi nag doon ko màggal am solo defar ay berne defar ay xéewal mu doon guddi yërmande guddi goo xamante ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy guddi dajeeg guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy guddi gu am solo ci jullit yi ñu doon ko màggal fii wax dëgg yàlla defee nañ ko loo xamante ni daal nu kawe suñ jot di ñaan suñu borom defal ñu ci tawféex defal ñu xéewal defal ñu sanaadu daare ni ba lépp lu ñu sàkku ci guddi googu rek suñu borom defal ñu ko ci barkeb Seydina Muhammad الحمد لله حق المعبد